kon est-ce que nekkul euh, mystique bi moom moo ëpp doole euh, mm-hmm. mbirum professionalisation waaw non mais xam nga tey euh, mystique boobu benn affaire la tey mystique li tax ma ne benn affaire la mystique ak contrat jotee ñu dara alors ñun signé ñu contrat. Ah, noo si signé ñu contrat ak mystique mbër lañ signé contrat muy lutteur bi ak manager li ñuy engage mooy li nga xam ne ni moom la teg si wax ak contrat bi ci loolu la ñu war a ndax su fekkoon ne mystique la su fekkoon ne mystique la yaakaar naa chaque jour vingt litres ñooy ñooy bëree euh, vingt litres yi bëree vingt litres ñooy daa euh, dix ñooy daan dix daan kon tey wax tamit booy seet ci mystique bi euh, moom li mu la wax neewul loolu moo war a am li nga wax yow yaa ngi wax wàllu règlement ak yoon mais moom li mu la wax ni la mystique bi moo ëpp doole. contrat bi dëgg la da ngay am na am na am na ku doon wax ni mm-hmm. ñëw stade seetaan ñaari ponkal ñuy sangu ñuy sangu. ndax tey jii làmb règlement booy seet fi ñu ko teg du yoon tey jii naka ngay ñëwee làmb dugg làmb cinq heures ba neuf heures ci guddi. Mm. yaa ngi ci biir stade bi. ñuy sangu rek c'est-à-dire moom li mu wax règlement am na ci làmb ji mais règlement boobu mbëri dañ koy teggi teg ko fële xam nga tey jii Ama Baldé des fois nga dégg am ñu la wàllu mystique moo tax ñëwuñu. kon règlement booy set mystique bi moo ko ëpp doole.